ni ñoom ñëpp li fi def dara baaxul ay fossoyeur yàq nañ économie bi bu utilisé woon na sax benn kàddu boo xam ne bi nit ñi ñu ngi ko doon jiiñ di ko wax ba mu dellu soit rectifié mais am na ay sénégalais yoo xam ne dañu nekkoon ci bitim réew ak ci biir réew mi ne comme Sonko dafa bëgg yàq système bi fi nekk da ko bëgg a tas génn bokkam ci politicien yi indi ñu leneen lu bees ñu àndoon ak moom normalement wuy ji bii Sonko dem wuy ji Abdoulaye Wade rek ba naan day waxtaan moom demain ak après deme ay démission yu bëree bëree bëree bëri la ñu waroon a noté ci ci wu Sonko parce que lam leen gëmloo woon ne moom la nekk lam leen gëmloo ne moom la nekk mi ngi commencé di ko weddi te falaguñ ko kon ku mel noonu kenn waru ko jox carte yi parce que li leen di wax moo raw sax wax waxkat ça veut dire di proposer un système boo xam ne mënu koo def te tous les moyens sont bons pour Sonko la parce que mi ngi approché wu de que 65 pour cent des ñoo ko weddi woon. ñu teg ko taar yu nekk ñu teg ko ci moom yow nga ni damay ñëw pour nekk nit ku bees tey jii ngay dem ci Ablaye Wade di ko supplier pour que moom mu fal la parce que Sonko demul ci Ablaye Wade pour bëgg ay conseil Sonko fi mu ne nii dafay dem ci Ablaye Wade dem fekk na ko Versailles di ko sedda Sonko veut que Wade jàppale ko kon nag ñëpp ñu yaakaaroon ne Sonko day changer système bi war nañ ko bàyyi tey parce que c'est pas l'homme qu'il faut